à la diabolisation qui commence autour de Bassirou Diomaye que ne ban stigmatique euh, commencé nañ naan euh, Cheikh Omar Anne toog na fii barki démb mu ne Bassirou Diomaye il représente euh, l'aile l'aile l'aile salafiste de Pastef commencé naa dégg waa APR yi di di entonner ce la là qu'est-ce que vous répondez c'est pathétique mais tu vas convenir Sénégal am na ñoo xam ne gëmuñ benn diine Est-ce que ça des Sénégalais de seconde zone Il y a des animistes parmi nous, il y des chrétiens, il y des musulmans, il des mourides, des tidianes, des salafistes. Kenn ku ci nekk li nga xam ne loolu nga gëm. Est-ce qu'un salafiste mën na prospérer dans un je ne dis, je dans, dans une organisation confrérique comme la nôtre Je ne dis même pas wax débat bi c'est pas ça parce que si je réponds à cette question c'est confirmer que Bassirou Diomaye Faye est salafiste ou pas alors que moi le cadet de mes c'est un homme bien respectueux qui a d'autres qui a tout donné à cette formation politique et qui aime son pays qu'est-ce qu'on veut de plus. xale yi nee nañ na doon dëmm. <laughs> ñu jox ko <laughs> <laughs> j'ai vu quelques postes. ñu ne ngeen c'est pour ça que on le vraiment je les je à un nañu élever débat nañu